tey xi fàddilu mi buur yàlla doon li noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla u qalbuka wala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fii sangub góor ñëpp yàlla aoudu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi safoo seen télévision Touba Vision ña ngi leen di nuyu bu baax a baax fu waaye mën a nekk ci biir réew wala bitim réew ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaat tamit ci bis bu tedd bi muy euh, bisub Kazu Rajab ñu baax ko saa yu nu Kazu Rajab ba ci ëllëg sa rek ñu daje fii ci bunt kër Sëñ Fallou def cérémonie officielle bi ren nag tey ñu tànn am tomb bu am solo muy Serigne fàllu Mbacké radiallahu taala anhu ak liggéey yaakaar naa ku wax liggéey xam ni mooy li nga xam ni moo mën a ñoŋal réew waaye bala ma cee rek damaa fekkoog sama kilifa sama mbokk taalibe ñu koy wax Serigne Modou Kandji mi nga xam ne moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllu organisation ak lu jëm ci wàllu presse fii eh, li eh, ci eh, ci màggal gi kon dama koy bàyyi mu nuyoo cheikh bi maa ngi lay seer bu baax. ñu ngi lay delloo fay di la seere baax baax di seere mboolem ñi nga xam ne seetaan Touba Vision di leen sant baax seen taxawaay ak seen liggéey bu am solo bi ngeen liggéey ci màggal bi di ngeen def. waaw mu mel ni tey euh, tomb bi nga xam ne moom lañ tànn ren ci màggal gi muy Serigne Fallou radiyallahu taala anhu ak liggéey lan moo sabab tànn boobu ak tey lan nga ci mën a indil ci tomb boobu. waaw jërëjëf xam nga màggal gi day faral di am ay euh, tolluwaay ndax am na jamono yoo xam ne nii loolu daawu ci am waaye gis nañ ne. Euh, at yi mi ñu ngi def ay euh, euh, yu mel noonu yoo xam ne liñ jublu mooy gën a jàngale ak gën a wone sëñ fallu ay jikkoom ak ay melokaanam ak ay jëf yi nga xam ne nit ñi danañ ko mën ci moom ba taxoon na nag at yëpp ñu ngi tànn at mu jot lenn ci ay li nga xam ne mees na koo jële ci moom le ren nag ñu tànn sëriñ bi ak liggéey ni mu amee njariñ ni amee euh, mën a amele nit importance su euh, am indépendance boppam ngir moo mën a am euh, istiqlaal yi maanaam indépendance boppam loolu moo tax ñu tànn ko ren ngir jàngale ko wane ci nit ci sëñ Fallou Mbacké doon doxe ngir nit ñi man cee roy man cee jël ay matukaay looloo waral ñu tànn ko muy thème bu am solo ndax liggéey day loo xam ne nit ki bu ko defee dina mën a am wér dina mën a am wéru xel dina mën a am tamit wéru indépendance euh, euh, boppam comme ni ma ko waxee léegi ba mën a yor boppam kon lu mën a jàngale la ci jamono ji surtout ndaw ñi nga xam ne euh, dañuy jàpp ne liggéey dañ koy war a xeeb wala dañ koy war a tànn wala barab sàng wala barab sàng bu ko amul te liggéey yaatu na bëri na xam naa kon buñ demee ba si kanam rek xëy na wala wala ñi nga xam ne ni waxtaan nañ ci ci waxtaan yi wees ci màggal gi ndax ren dañoo jël ay bis comme ni ñu ko daan defee at yi rek jagleel ko ay kilifa ku ci mel ne sëñ Cheikh Thioro Mbacke mi nga xam ne kenn ku ne xamoon ne ko ci diggante ak sëñ Fallu nga xam ne liggéey bi sëñ Fallu doon liggéey ci jumaa ji ak ci wàllu kii bi lépp lépp lépp moom ñoo ko doon ànd moom lañ tànnoon dem fa ngir waxtaane fa it lii ma wax léegi mooy wàllu liggéey ni mu amee njëriñ am na ay tomb yu bari yuñ ci waxtaane suñu affaire yi doon ko doon ko def defoon nañ it ab bés boo xam ne kër sëriñ sëriñ Abdou Mbacke Ridis moom it euh, ñu waxtaane fa wàllu euh, moom it liggéey ni mu amee euh, njëriñ ak it lew fàggulu lew ndax fàggu it nit ki buy fàggu war naa xam ba xam fàggulu lew warul fàggu ni mu ko ni ko soobee loolu lañ fa doon waxtaane muy lu am solo loo xam ne muy lu am solo loo xam ne wax dëgg yàlla maanaam yaakaar naa ne jàllale ngeen ko ci seen jàllalekaay yu am solo kon loolu daal moo taxoon ñu tànn wàllu tam bi nga xam ne bëgg leen rek nit ñi roy ci jëlee ci ay bind yoo xam ne bu màggal gi weesoo dinañ ci mën a jël ay euh, tiir ay euh, ay ay leçons yoo xam ne vraiment dana mën a yóbbu réew mi ndax am réew ab liggéey moo koy yor waaye du ay ay ay théorie wala ay wax kon moo tax ren vraiment ñu xam daal liggéey lu am solo ci euh, am réew ñu tànn ko def ko mu nekk thème central bi jërëjëf suñu mu nekk thème central bi comme ni ñu ko waxee waaye nag euh, incha allah euh, kon dañuy gis ni euh, Cheikh Mouhamadou Fadal radiallahu taala anhu ci réalisation ci wàllu liggéey nan lañ ci nekk woon modèle boo xam ni modèle de réussite la waaye nag su ma doon laaj tey ci liggéey yooyu nga xam ne Cheikh naa Cheikh Mouhamadou Fadal radiallahu taala anhu def nga ko ndax mën ngañ ci indil benn misaal lekk boo xam ni misaal bu tënk la bu gàtt boo xam ni tey dinañu mën a may mu nekk ab bind boo xamante ni képp kuy jeunesse war nga ci mën a jël bind comme lan. Euh, loolu xam naa ne comme li nga ko waxee léegi dafa xat dafa xa dafa lépp du fi xaj ndax wax nañ ci yu bëree bëri ci weesu waaye euh, bokk na ci rek euh, li nga xam ne wax dëgg yàlla mat naa roy mooy sëriñ fallu bi muy sanc Ndindi 1913 kon kenn ku ne xam ne boobu ndaw la loolu loolu loolu misaal la ci ne kon ndaw warul toog di dund ci ab barke wala mu toog ci du dund ci loo xam ne dañ ko da ko faa fekk waaye daa war a créer créer dara foo xam ne dañ fay dañ fay dañ fay dañ fay liggéey mille cent koo xam ne yaa ngi gën a àdduna mille huit cent quatre-vingt-neuf su fekkente ni yow yaa ngi euh, am ab dëkk mille mille neuf cent euh, treize yaakaar naa ne loolu vraiment joxe nga exemplaire ci ne nit ki war na euh, sos waaye warul fekk dara mu mu toog ci rek yóbbu ko mu avancé ndax bu fekkoon ne loolu la mën naa wax ne maay doomi Cheikh Ahmadul Xadim mu toog bañ a liggéey bañ a sos bañ a créer waaye mu sanc dëkk teg fa ay euh, ay nit ñu jàppale ko ci liggéey ba muy bay te bay kon kon xam na ne lu am solo la ci dëkk ndax bay dana tax nga am looy dunde moo tax ñun suñu ndaw yëpp war nañoo delluwaat ci nangoo liggéey wàllu mbay ndax suñu mag ñi dañoo amoon ñoom sansu di bay di dunde ndax nit ki su amee dunde rek. loo xamee ni euh, euh, vraiment euh, lew na ko dina mën a am dal ak ak jàmm ndax nit ki bu fekkente ne ni amul lu mu dunde faaw mu wuti ko te na mu koy wuti nag bu fekkee bay na ba am am si lu bëri ba jal ko loolu dina am ak dal kooku Sëñ Fallu nag créé dëkk loolu exemplaire la ci ne ci liggéey la ndax dëkk wax nee naa la ku ko sos dina amu aw ay yoon te loolu ci liggéey la bokk création la bokk dina am ab marché dina am jàkka dina am sante te loolu vraiment ko kon ki am xalaat xalaatam ne xaaral ma sos ab dëkk loolu liggéey bu ama am solo la loolu exemplaire la ci te defu ko benn dëkk kese ndax euh, mën nañoo jox exemplaire bu mel ni bi mu sosee euh, Ndindi sos na dëkk bu ñuy wax tubaa Touba Alié dafa bay dafa sàmm dafa def ay yu am solo yoo xam ne lépp ci wàllu liggéey la ngir rek li muy wax léegi mën a moom mën moom boppam samp sanc na fu ñuy wax euh, mbépp sanc na fu ñuy wax ay euh, Touba Mirina ak yu bëree bëri yoo xam ne li ma la wax léegi dañ fay liggéey dafa tàggat donga yi ci ñu nangoo liggéey ngir ma a yor seen bopp loolu lu am solo la ndax xam nga doomu aadama su fekkee liggéeyu rek faaw rek mu am vide mënut a am vide bi dimb ndaam kon moo tax ñun vraiment war nañoo mën a tirer ay ay leçons ci mag ñooñu nga xam ne ku su mel ne Cheikh Amadou Fadul ci sos gi mu sos ab dëkk nekk ndaw ngir bëgg nit ñi di di fa nekk di liggéey loolu exemple la si ne maanaam sëñ Fallou euh, ku bëggoon liggéey la te it nekkoon na ci ba jóge fi te bu ñu xoolee nag liggéey bi noonu liggéeyal sëñ bi moom nga xam ne moom loolu da ciy sàkku tiyaaba ak li ci sàkku ngërëmul sëñ bi loolu lu am solo la waaye li may wax léegi nii mooy li nga xam ne intérêt général la ndax ab dëkk ku ko rek intérêt général dugg na ndax wax naa la ko santé ay yoon marché lépp dina am ci dëkk bi te intérêt général la te nit ki ne kon war na fexe ba lépp lu muy sos ak di ko liggéey mu nekk intérêt général boo xamee ni doomu aadama yi ñoo si war a ñoo si mën a jëriñu noonu la Cheikh Amadou Fadil Mbacké daan def. sëñ bi ok kon loolu la Cheikh Amadou Khadal Mbacke daan def radiyallahu taala anhu kon muy tomb boo xam ne tomb bu am solo tomb bu yaatu waaye liñ ci mën a tënk rek mooy doomu aadama dafa war a am indépendant te pour nga am indépendant li la koy may mooy nga fàggu li nga xamante ni tey lépp Euh, moom nga war a dundee fàggu ni nga xamante ni tey moom mooy ñongal sa dund te loolu ci la Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu yaroon jaboot gi waaye it ñoom it noonu la ko defee woon kon ñu teg foofu suñu baaraam rek incha allah ak yeneen i jotaay ak yeneen i plateau ci cérémonie officielle bi nga xam ne mooy am fii ci bunt kër Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ci jouru Kazu Rajab bi kon ci kanam wasalaamaaleykum wa rahmatullah